wa arsalatna bi rifqati ahadi azati sitna ci àndaale kenn ci sunu professeur yi li mushahadati hadal maaridi ngir jàkkaarloog bile exposé alqayimi bi aji foor mu ne jamono yi gouvernement bi di def benn foire wala benn exposé boo xam ne xeetu waalima yépp ñoo ci bokk te ñu di ci wane kenn ku ne xeetu xarala gam man daa fekk booba nag mbootaay googu tudd UNESCO te taq ci Nations Unies doon daje foofu ci Liban seen ndajam ñetteel ndegam nag UNESCO moom day toppatoo wàllu xam-xami aada yeeg cosaan yeeg liberté ak doomi aadama ak lu ko jëmale kanam te gouvernement bi itam def benn foire ngir ñu dëkk Liban ku ne mën faa wane sa xarala ñu gis ko loolu moo tax nee na sunu njiitul école bi maanaam ñi jiite sunu école bi jàpp ne loolu occasion la daal nuy boole nun ñi fiy jàng ci école bi mu ñu boole noog kenn ci professeurs yi ndax nu dem seeti exposé boobu wa indama marartu ba ma rombee taxtal yaa fi tati ci ron écriteau ba daañu ko wax écriteau daañu ko wax panneau daañu ko wax enseigne maanaam ñiy manifester li ngay gis ñu di ko yore mu di ay tableau ñu di ca bind lañ bëgg a wane wala boog beneen tableau rek bu ñu bind luñ bëgg ñu gis ko booy seetlu daal da nga di gis ñiy manifester ñoom ñu yor ay tableau wala ñu yor lu mel ne ay sir am luñ ca bind bëgg ñu xam ne loo leen tax di manifester wala nag moo tudd al yaa fi tatu daañu ko wax allah fi tatu taxtal yaa fi tati ci ron écriteau ba lët yi ba nga xam ne kuti ba bindeef na alayha ca moom maaridu sinaaxati al lubnaaniyati fuwaaru xeetu xarala bu waaliban wala exposé ba tey baax na kaana nekkoon na nadari sama xool laa yeesaalu du dañ xaaliqan di aji taq bi alaamil xamsi ci drapeau juróom ña wala arbaxin ak ñeent fukk ña dawlatan ci ay état allati ya nga xam ne ishtarakat bokkaale nañu fii mutamaril UNESCO ci congrès UNESCO wala ci conférence UNESCO allësi ba nga xam ne uqiima taxawaleef na ko fi Lubnaan ci Lubnaan li haadihi dawrati ñeel bile période wala ñeel bile yoon
daa waxoon ne ci jamono yooyu daa fekk UNESCO di mbootaay gu taq ci Nations Unies doon daje seen daje boobu foofu ci seen réew mi muy Lubnaan mu ne nag ba ma tolloo ci ron fi ñu defee pouvoir bi te boo dee xool gis ñu bind ca kaw maaridu sinaaxati al lubnaaniya bàyyi romb foofu boobu ba léegi maa ngi seen drapeau yi nga xam ne mat nañu ñeent fukk ak juróom muy drapeau yoo xam ne day représenté réew yu nekk membre ci UNESCO ndax dañuy def fu ñu daje dañu yëkkati drapeau pro mu ne mu ne nag bu may romb ci suuf fi ñu defee pouvoir bi ba tey sama bët mu nga doon seen drapeau yooyee wa awwalu xurafatin aji njëkki ab sàmbar daxaltuhaa ba tàbbi naa ko min xurafil maaridi ci sàmbari
exposé ba wala foire ba kaanat nekkoon na mu xas sa satan di lu ñu jagleel lil mafrochaati ñeel moobal ya mafrochaat day mel day firi yu ñuy lal bàyyi ko ci faracha lal na waaye ñoom dañ koy firee meuble wala mobilier fa isa bi am ti lu may maa ngi yem ci sama bopp rek amaama qita'in ma nekk ci kanam ay mbir yu yéemu mooy xitaan bi firi ay morso ay dog rek raa i xatin yu aji tiit la ci ab taar min intaajin najjaarina ci produit ministre yi al lubnaani yéena yi ko jóg liban te dullu yooyu danañu tegtale ala maharatin ci ak ñaw faa iqatin guddi aji kawe fi itqaani haadihi sinaahati ci xereñe mi la métier allati bi nga xam ne tu dirru dana sotti mbaa dana jural xalaa lubnaana ci lum naan al arbaaxa bénéfice ya at taailata yi aji am solo wantaqaltu te ma déplacé ilal xurfati jëm ci sàmbar ba al mujaawarati bay aji sësaloog moom xurfatil xalwiyaati te mooy sàmbaru xeeti gato yi wal murattibaat yi ak xeeti boisson fraîche yi bi ma duggee ci exposé bi mbaa nga ne foire bi néeg baa njëkk a jot dañ koo jagleel xeeti mobal yi ma gis xeeti mobal yoo xam ne waalimaa yi ñoo ko liggéey ñu rafet lool yéeme lool di wane rek ne waalimaa am nañu xarala ci wàllu defar xeeti mobal yooyu tayit ñu ngi ci andi ci réew mi ci kaw métier moomu ay bénéfice yu bare bari maanaam ay alal yu bare bari ma jàll nag ci néeg ba sës ci moom muy fu ñuy wanee nag xeeti gâteau yi ak xeeti boisson fraîche yi xaraji naa génn nanu min haadihi l xurafati bàyyi ko ci bile néeg wala bile sàmbar li na doxala ngir nu dugg xurfatal masnuaati néegub yeñu fabriqué azirahiyati ko jóg mbay fa isa bina am ti lu may ci lun rek amaama wala bin noo ngi nekk ci kanam ay buwaat wa mara tabina ak ay bokaal maanaam ay pot rek martabaan mooy mufrad mi jam xoo ko mara tabin jamhu taksir la muli at yooyu feesaleef na leen xobooban ci ay xeeti pepp mu jafafatan yu diñu wowal aw murabbayaatin wala ay xeeti konfi lavidatan yu di aji neex bam génnee ci nee boobee ñuy wanee xeeti gato yeeg boisson fraîche yi dañoo jàll ci beneen néeg boo xam nañ ko jagleel lu aju ci li ñuy bayee ci suufas liban te di ko defar bañ mën koo jariñoo ñu gis nag ay boîte ak ay pot yoo xam ne dañ caa def ay xeeti pepp yu ñu wowal ba mu wow wala ñu liggéey ci ay xeeti confit yoo xam ne yu neex la xam nga da ngay gis lu mel ne raisin buñ ko wolee ñu koy def ci ay pot ak yeneen yu bare bari yooyu la ñu tuddee nag martabaan di ko jam xoo mara tabin wa baxda an xaddayna gannaaw ba nu añalee gannaaw ba nu suuralee daal almaidata bàq ga bi ladidil ataximati ci aji neexi ñam ya tawajjah naa lanu dëgmal ila xurfati ila xurfati taxdiyatil xuyooni jëm ci néeg ba ñuy añale bët yi na xam waaw laxadd tawajjah naa dëgmal nanu ilaa xurfatil mujawharaati jëm ci néegub bisu ya bisu dañ ko wax bisu tëri mu jawharaat mooy xeeti takkaay yi allati ba nga xam ne xorida waneef na fiihaa ca moom ajmalu intaaji saairiina gën jaa rafeti defarug tëggkat yi libaane yi fi lubnaana ci lubnaan wallati tey néeg ba nga xam ne asarat jàpp na am vaaran nisaa yi bëti jigéen ña bi suuratin ci aw melo wala ci anam xaaf satin bi aji ràññi ko gannaaw ba nu suuralee sunuy biir ci ñam yu neex yooyu nga xam ne mooy ñu weesu léegi ci xeeti gâteau yeeg boisson fraîche yeeg xeeti boîte yi def li ñu bay te def ko ci ay boîte ak ay poto yooyu ban génnee foofa danoo jàll nag bëgg a suural suñu bët maanaam ndegam bànneexal nañ biir yi nan jàll bànneexal bët yi daal dem ci néeg ba nga xam ne xeeti takkaay yi fa lañ koy wonee boo fa demee da nga gis ne tëggati wursi xaalis te nekk ci liban mën nañ lool seen métier wane nañ foofa itam yu rafet rafet yu ñu defar xëy na sax ku ko gis bëgg ko ba mu teelaa dem waaye nag jigéen ñi ñoo ci raw jigéen ñi ñooy gën a yittewoo takkaay yooyu wa min haadihi alxurfati ci bile sàmbar tawajjaxna lan dëgmale ilaa xurfati tanzifi jëm ci sàmbaru yëfi setal yi daa am ne buñ jagleel lépp loo xam ne lu ñuy mën a setale la ñu bëgg ko faa wane muy xurfatu tanzif fa ida hiya amt lu may moom tax wii dana ëmb mantoo jaati zaytoni yee ñu defare ci olive min saaboonin ci saabu muxtalifil anwaax yi bi aji wuute ay façon wal ashkaali ak i forma wal alwaani ak i couleur wa ba'da zalika gannaaw loolee nag daxal naa dugg nanu xurfatal xotooraati néegub xeeti lat ko lañi wa adawaati tajmili ak effet toilette yi xaytu shahaduna fa nga xam ne fa la nu jàkkaarloog axira ma la mujj ci la nga xam ne tawassalat jotliko na mooy àgg na ilayhi jëm ci moom haadihi sinaahatu bile xarala wala bile industrie aljadidatu bi aji yees aljadidatu allati bi nga xam ne kaanat nekkoon na tadhabu di yóbbu mooy di demee mooy di yóbbu rek bi xismin ci ab xaaj wala ci wàll xazimin guy aji rëy min tarwati lubnaana ci koom-koomu lubnaan ilal xaariji jëm ca biti ban génnee ca foofe ñi wane xeet takkaay yi dañoo jàll ci fa ñi wane yëf yi ñi setale ci boo bëggee setal nu gis nag ñu wane fa ay xeeti saabu yoo xam ne daal dañ leen defare ci zeytoon te muy saabu yoo xam ne wóote nañ ay façon wóote ay couleur wóote ay forme gannaaw ba nu jàll ci néeg ba nga xam ne fa la ñuy wane xeeti lat ko lañ yi ak xeeti effet toilette yi foofa wane nañ fa li xel yi mujj xalaat ba génne ko ci googu wàll mu yu yees a yees nga xam ne moo mujj daal ci li ñu defar ci googu wàll wane nañ ko foofa muy lu yéeme loo xam ne lañ daan jëli ci bitim réew di génne xaalis réew mi muy dem léegi dañ koy téye doyloo yi nga xam ne moom la waa réew mi liggéey te mu doy sëkk wecc yooye nga xam ne dañ daan génne sumu xaalis di ko jëndi wa min fama ci foofee tawajjah naa lan jublu ila xurbatil masnuaati jëm ci néegub ya ñu fabriqué alxadidiyati yay ko joñ bu ñuul allati ya nga xam ne tataqaddamu danañu avancé bi bët in ànd ak bu yeex walakin xawaaye ñoom te dull danañu tegtale xalaa taxassunin ci dolli ko rafet mal moo si ngudi buñ làmb dacc su ma shahad naa topp nu jàkkaarloog xurafal alxaabi léegi ñu wane fayukaay ya an naariyat yi ko jug sawara al alxaab an naariya moom la ñuy wax feu d'artifice feu d'artifice mbaa boog pétard yooyu ñu foyee di ko taal muy naaw ci jaww ji li tudde al alxaabu naariya baab ji topp nag wal buuyaa dañ koo seet seet gisuñu ko ci seetukaay yi man naam nag muy baat boo xam ne ñoom waa réew ma ñoo ko miin waxe noonu te nekkul baatu arab bu wér wér al wataniyati yey national wasamaadaati ak xeeti engrais yi alkima wéete ko ju chimique wal bilaati ak karoya bi ashkaalihi ci ay formaam al muxtalifati ya di wuute gannaaw ba dañoo jàll ca fañ ñi wane yéen ñiy defare ci weñ gu ñuul yooyu nag nee na waa réew mi amuñ ci avancement bu gaaw a gaaw waaye gis nañ ne am nañ ci yokkute ña nga cey jëm kanam jëm kanam goo xam ne boo ko làmbee daj ko xàmmee ko bu baax a baax mu jàll ci néeg ya nga xam ne fa la ñuy wane xeeti foyukaay yi rawante na yi ñuy tudde feu d'artifice ak yeneen xeet foofu lañ koy wanee ak ay xeeti engrais engrais yoo xam ne dañ koy gëstu am yu ñu boole ba jàpp ni lii déggoon ak suuf si ak xeeti karo yoo xam ne yu wuute ay melo la yëpp ñoo bokk fuñ leen dajale waqat du tawaqaf du taxaw naa kasiran lool fii xurfatil man soo jaati ci néegub yañi ràbb bala nga ne ci néegub xeeti tiise yi al wataniyati yay national allati ya nga xam ne te dullu danañu tegtale bi xaqin ci dëgg xalaa taqaddumi haadihi sinaahati ci avancé bile métier wala bile industrie alxazimati bi aji rëy fii lubnaan ci lubnaan néeg ba ñu wanee xeet yi ñu ràbb mel ne xeeti tissé yooyu moom it taxaw naa fa lu yàgg-yàgg gis naa ne it mécc la moo xam ne avancé na lool jëm na kanam lool lool wa axiran ci ak mujj zaada tolliku na soróor yi sama mbégte jiddan lool lamma zurtu ba ma wisitee xurfata sinaahati néegub xeetu xarala ba wala néegub industrie ba alkahraba iyati bay ko jug courant wa shahabtu te ma jàkkaarloog al rajo rajo ba al lubnaniya bay ko jug liban ñu koy tuddee jilozo allasi ba nga xam ne turak ki boobu dina ko composé fii lubnaan ci lubnaan maxallaatun ay place lubnaaniyatun yu ko jug lubnaan fa badaate mu feeñ fii ashkaalin ci ay forma gaayatin yu dem dayo fi diqati ci ak xereñ wal husni ak taar wal itxaani ak xereñe mu ne nag faa mujj dem te bëgg ci lool saa mbég gën a yokku mooy néeg ba ñu wane xeeti xaralay jëm ci wàllu courant ak loo xam ne courant moo koy doxal foofa gis naa fa xeetu rajo boo xam ne ñu koy tuddee juloso muy rajo boo xam ne fii ci biir Lubnaan lañ koy composé am na ay palaas yoo xam ne ñoo koy composé dafa mel ne kon bu fekkee libaane yi am ñu xaral ak defar pièces yi itam dañu indi pièces ya xëy na bàyyi ko bitim réew ñu koy jàppalee foofa nag maanaam di ko monter foofa bi ma gisee rajo boobu nee na nam mel dafa rafet lool te xereñ lool mel daal nañ ciy taamu wa inda mugadarati fa samak bàyyi ko marida sinaati exposé industrie ba wala xarala ga kuntu nekkoon naa u fakkiru di xalaat fii waajibil xukumati ci warteefu gouvernement bi wal axniyaay ak way riis ñi ndax war si naaxati ci wàllub industrie industrie mooy xarala ba mën a taxawal ay usine di ci defar yu bare bare id ngir bi duunihaa ci ludul industrie laa taqadduma deetuk avancé lil bilaadi di ñeel dëkk yi wala ruqiya te deetu yéeg wala dihaara du caageenu ak yokku gën a rafet muy nag bi ma seetaanee foire bi bay dem dama doon xalaat daal ne gouvernement bi ak ñi nga xam ne am nañ alal war nañoo gën a yokk seen taxawaay ci taxawal ay usine bu ko defee ñi am googu xarala di ca liggéey ndax dafa mel ne loolu rek mooy mën a tax am réew jëm kanam ba lañ cee séentu am ja
alkimiya mooy baat bi ngay faral di firee mbóot bu dee ci luxa day maxnaam alxiilatu wal xidq maanaam pexe ak ñawte ku muuste alkimiya dana ko di firi bu ñëwee nag xilmul kimiya ñu njëkk ña dañ ci daan jublu xeeti doj yi nga xam ne ay mbel lañu bu ñu leen di soppee jox leen foraay bu yees mel ne lu nekkul wurus ñu naa dañuy fexe ba soppi ko wurus boo ñëwee nag ci xam-xam bu yees bi nga xam ne dañ koy jëfandikoo lu bare bari ni nga ko déggee fii léegi dañuy wax ilmun yubuhatu fiihi an xawaasil xanaasiri al maddiyati wal qawaaniin allati taxdau laha fi durufi al muxtalifa wa bi xaasatin xinda ittihaadi baadiha bi baad ay attarkib aw taxliisi baadiha min baad ay attaxliil ñu yees ñi buñ tuddee alkimiya xam-xam la boo xam ne dañuy jéem a xam leen lu ne ci xeeti matière yi yan jagle la ci yàlla dëxëñ ak buñ ko dee analyser wala buñ boolee bii ak moroom ma lu muy joxe ñu yees ñi buñ waxee xilmul kimiya loolu lañ ci jublu xeeti matière yi nga xam ne yàllaa ko sàkk am secret yum ca dëxëñ te boo boole itam matière bee ak matière bee am lu mu joxe wala jëmi matière bi sax boo ko analyser teqale ko mu am lu mu joxe xam-xam bi xam la yu mel noonu moo tudd xilmul kimiya
muqtatafaatun yi de yu ñu watt lañu lil xifzi ngir mokkal te di ay xeeti way yoo xam ne dañu ko tànn andi ko fii ndax nga mën koo mokkal xaddulul mamooni mbaandu teg mamoon shayada yëkkati woon na wala tabaxoon na fi zamaanihi ci jamonoom al mamoonu mamoon xasran pale abaanat bopp feeñal na xos na xoo taaram ba alfunoonu xeeti aar yi ne xeeti xarala yi lam yax ki yi mësu koo niru xasrun benn pale minal xusóori ca pale ya fii saalifil ayaami ci aj wéyi bés ya wala xusóori ak jamono ya man nga ne fii saalifil ayaami ci aj jiitu yi bés ya wala xusóori wakaana nekkoon na kooxun ab néegum ñax bi isaa il qasri ci wetu pale ba ka kalafin niki ab ñuul ñuul wala ka kalafin niki ab xong xong yashinu boob dana ñaawal wàccal bëdri kanamu ko weer wa man nga ne it ka kalafi niki ab tâche ab taq-taq yashiinu boobu dana ñaawal wajhal badri kanamuk weer wa wala kaw weer wa li xaa ikin ñeel aji ràbb sir maanaam koo xam ne daal méccim ràbb sir lay def bi mil kii ci ak moomeelam faqiin ku di aji ñàkk mubtahijin kuy aji bég bi ay sihi ci dundam ba an nadiri bay aji na tax xaalin kuy aji wéet mina duyooni ci xeeti bor wal mataahi bi ak i coona muqtanihin kuy aji doyloo bi xillatin makaasi bi ci néew ak ay pàgguteefam ku ñëw xama amoon xalifa la woon maanaam buuru julit ci jamonoom dafa taxawaloon pale boo xam ne daal dafa rafet lool xeeti xarala yu bare bari xeeti technique yu bare bari def nañ ko ca mu mel ni daal amul benn pale bu ko mas a niru ci liñ xam daal mosuñoo gis bu ni mel am nag benn néegu ñax boo xam ne daa dend ak pale bi te moom nag li feeg ma nga fa daal day mel ne day wàññi taaru pale bi jële ko fa rek daal moo ci baax mel ne weer wi li muy leer leer su amee tache xong-xong wala ñuul ñuul ci rafetaay weer wi da koy daal di sikkal ñaawal ko néegu ñax bi nag noonu la mel mel ni daal li fekk ma nga ba taaru pale bi moom du feeñ fekk na nag ka moom néegu ñax boobu ràbbkatu sér la boo xam ne ci dëgg-dëgg moo moom néeba ak fa néeba nekk yépp moo ko moom xëy na it bari liwut wërsëg waaye sant na yàlla doyloo na la ko yàlla wërsëgalee ndax moom gàdduwul yenn boro bañ di ko sonal mbaa dara li muy am ci métier bi tam bu fekkee bariwut it doyloo na ko rek te doyloo am solo fa amara te digal alxalifatu xalifa ba alwasira ministre ba ay yasira mu dox yow mun ci ab bis ilal xaayiki jëm ci ajra bu seen joojee li yashtar ya ngir mu jënd alkooxa néegu ñax ba minal miskiine ci miskin ba al rida ànd ak gërëm bi tamane ci njëgg ak tamin ngay aju foor ngay aju foor mooy njëggu kawe kawe farafadda te bañ koy wax fëgg waaye mooy bañ rek alxaayiku aji ràbb sirja daakal bay xa googee jaay wala mu waa fiq xuute dëppoowut ak moom xale yi ci jaay ga taw xan ci coobarewu waxaal te mu wax ne indi naka man xaañawoon aju doylu laa bi maa ci li nga xam ne lii ñeel na ma moo tabitum aji ñeewu laa it bi xusni xaajil xaali ci rafetub mbiri mbir fa man si lii sama kër gi lëstu déet man xani yan may aji doylu an xuwalis ko toxal ju nii danga maa bëgg a génnee bi ayu sharhin ana ci ban yoon nga may génnee min fu ci moom kër gi fii ci moom tuuf fiya la faatee foon waalidi sama baay wa inni te naka man wulittu jureef na ma fii ci moom fa ilayka soril xànni walis ma ndax mawlaaye sama sang bi laa yor léegi du ko gërëmloo xaq yi sama àq ji yox damu dee fi ko gotti wa ànd man si lii ak naka sama kër gi alxaqira gi aji xeebu yuxdamu def na ko màbbu xalifa bi daa wax ministre am maanaam jaraafam ne ko boo demee waxtaanal maag kookee moom néegu ñax ba ak suuf soosee ne ko dama bëgg mu jaay ma ko te mën naa ko cee fay njëggu seer a seer daa mel ni daal lu mu bëgg rek mën naa ko koo fay naka ndaw li ñëw ci ràbbkat sér boobu nga xam ne moom moom néegu ñax beeg pàkk ba wax ko ne ko buur bi ne daa bëgg nga jaay ko béréb bi mu ne ko déedéet man daal duma jaay sama pàkk fii fi la sama baay dëkkoon ba faatoo fi man mii fi laa juddoo xëy na itam nag aw ma lu dul jeex waaye li ma yàlla wërsëgale doy na ma sant naa ci lu yàgg yàgg daal sama kër moom duma ko jaay duma ko weccee dara dara te it xam naa ne ki la yebal moom damay laaj ba xam loo bëgg rek mu fekk ma ci waaye bëggut ku ma tooñ di foqar ci sama kër gi xam naa loolu moom bëggu ko fa in zalamta nii ndeem tooñ nga ma nag chakawtuma jàmbat xaal yi sama mbir ilahi jëm ci moom kay yoon sifani ngir mu sédd ma sa àq kay yoon sifani fil xaali ci saasay saasa fa dul mu tooñ moom tabaxun jikko la fii nufoosi naasi ci bakkani nit ñi wal xabdulu waaye maandu xulkun jikko la fii banil xabbaasi ci banil xabbaas boroom pàkk bi te abakal sir bi daal di wax ndaw li te mooy ministre boobu ne ko man daal jaayuma tey jaayuma ëllëg te xam naa ne it soo ko dee foqal ci doole defoo ko ci kaw